علم لون بالفنون تصير لون بالقرآن NG Production مشد لون دوغا صوبيو نتيجاني مام ألاج أحمد براء علم لون بالفنون تفسير لون بالقرآن mursid la waan dooga soobu yoonu tiijaani ab tab la wër na soodaan yaaram la wër na janqe jàmbar la woon ci tariqa yaram la wër na soodaan yaaram la wër na janqe neey woon ci tariqa Cheikhu Tijaani jàkkam jamoo njëkk Cees daaram jamoo njëkk Cees gàmmam gamoo mag ci Cees ci gàmmi Cheikhi Tijaani jàkkam jamoo njëkk Cees daaram jamoo Cees gàmmam gamoo mag ci Cees ci gàmmi Cheikhi Tijaani mam boromo gasub teen sotti ca biir ba ti leereey ñuy naka neex ci yoonu tijaani mam boromo gasub biir ba ti leereey ñuy asiibi بلا بلا جد وحزم وعزم بالسياسات مجدد الدين في قرن العصيب بلا إمام جد وحزم وعزم بالسياسات حققت لله ما للدين من شرف ما باخ بل قمت حقا على نفع البريات حققت لله ما للدين من شرف ما مبويا باق جيجن بل قمت حقا على نفع البريات بلغت حملت قد أحكمت دعوة خير رسلي تبليغها تبليغها للقوم قوم صاداتي شيخ مرادم بكسا جوخ سمام ويردوه sul kuy mbóot li jaadaal ko jox koy ndigal ci tariqa bi ba mi du njëgin delloo keroog maam atta di ko laaj te naan ko gan ga moom ku mu doon mu naan ko baay Cheikh Umar fi ñëwoon ba jox may ndigal ci tariqa bi mu naan ko gii gën baax gii gën a rëy dabi ko moom mënee su ko xawma woon ni fóoti woo yesal ma maam ci tariqa bi ba mi di njegeen demee keroog fa caat maamu dem xaleel jeewul mu siiw ca moom e réew ndax leeru sharif gën a ca moom bu dee mbayit moo ca man bu nu mu daal di maam Ahmad Baro moo di turame saa yu bayee mu gën a naat te bu tàngee mu ëpp fit bu dee mbayit moo leen bu ñu sosoo mu daal raw alxaaji Ahmadu Baro njegeen moo turam saa yu bayee mu gën naat te bu tàngee mu ëpp fit